yéen yéen yéen wax nga ko léegi yéen amuleen benn benn man ma conviction man ma conviction nit ki APR lay doon te am na ci koo xam ne il il remporte presque l'assentiment euh, de de de de bon nombre de de de de, de gens il euh, y a il y a Amadou Ba qui est présent dans dans dans tous les dans tous les esprits hmm. ah non xam nga ñu bari jàpp nañu ne c'est c'est c'est ah, Ba li ngay def nii xam nga xam naa la xam nga yow journal <laughs> yow xam nga man sama digganteeg Amadou xam nga ko ñu bare ah xam nañ ko. muy ci parti sax mooy sa candidat non da ma bëgg a wax loolu xam ne damay génn fii coow toppati ma wax naa léegi mboqat laa dama ragal damay daw coow. Amadou xam nga mu ngi noonu. c'est-à-dire Amadou mënu ma set su ma ci waxee danaa taq su ma ci waxul dinaa taq mais pourquoi may parce que dañuy yàgg avant politique. xam nga su waxee dëkk bi Amadou man Amadou ba may xamante moom nekkul directeur général impôt et domaine ñuy duggante saafonte muy taal otoom di ma fekk Médina Médina parfois Médina fi fi groupe comme set nekkoon naa <laughs> ah, di ma fekk boobu Amadou nekkul directeur général impôt et domaine Amadou nekk fi directeur général et domaine domaine Macky Sall du budget finance euh, ba tey mu doon premier ministre mais lu ma ci commentaire gars yi def ci livre voilà mais comme li ñuy wax rek dafa am loo xam ne tamit xam nga nit soo nekkeek moom di daw di daw di daw vraiment war nga commencer su absnéw soo jàngul ci moom quatre-vingt-dix pour cent war nga jàng ci moom sax au moins quinze vingt pour cent. donc da def ni Macky Sall. waaw damay ji damay man damay jéem copier. ci ci Macky mais c'est la lan moo indi woon. en presque quoi deux ans qu'on parce que bon toujours wax mbel mbel mbel mbel mbel mbel mbel su yàggee en fin de compte bruit la nit ñi di dégg mbel mbel mbel lu nekk nga taxasi donc moo tax man la wéy li nga wax ne am naa ci xalaat wéy am na lu loo xam ne pour man moo gën mais tey soo ko waxee mais tu rends un très mauvais service au président tu rends un très, très mauvais service à Amadou wala tu rends un très mauvais service à Abdoulaye à Abdoulaye Daouda jàll parce que situation bi ñu nekk nii may defe naa c'est une situation particulière nga toog réew prés mu des juróom benn juróom-ñaar juróom-ñetti weer avant ñuy élection président bi yor réew mi xam ni moom day organiser rek affaire mais du ci bokk mais am na parti am na coalition c'est délicat c'est xam nga lu xam nga lu bees defe naa ñu koy soog a dund su ma juumul mais lu bees lu nekk da mën mais mën-mën boobu nag mooy attention mën-mën bi fi mu gën a compliqué mooy nga toog ci palaato rek di jaawale le réalisme li mën a am ak yow ak li nga bëgg ak yow li nga bëgg